mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon a déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon a déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun ndax sëriñ si jiitu woon dañoo nekkoon ci alquran ak sunna su ma waxee ne mag ñi ci sun réew mi léegi dafa dem ba benn terme la boo xam ne la ñuy wax rek la jëkk dem ci xel yi mooy sëriñi tarixa yi la ñuy wax fekk noonu fi ñuy waxe gën naa sori foofu lislaam dugg na ci sun réew mi ba am ñetti téeméeri at ak nàngam te ab tarixa duggagu fi loolu war naa bokk ci li ñuy xamaale Cheikh Abdul Qadir al Jilani mi xam ne moom la ab tariqaam jëkk fii ci tariqa yi bi lislaam di dugg Sénégal moom ci boppam ganeegul àdduna toog na diir bu yàgg door a gane àdduna loo xam ne xaw naa jege ab seekal wala mu ëpp ko sax kon ñu xam ne eh, suñuy wax mag ñi jiitu na fi ngeen jort ànd ak ne histoire Sénégal liñ xam ci njàngeen wi boo ko dee gëstu ñi fi jëkkoon te tënku ci li nga xam ne almuwaxiduun moom lañ doon tasaare loola bu dee ci wàllu pas-pas lu jege manhaju ahlu sunna wal jamaa la bu dee ci wàllu fiq mazhabu Malik lu fi teel a ñëw la waaye ñu xam ne li ñu tudde al maghrib lépp nga xam ne Maroc ga caa dugg Tunis Algérie Libye ba ci Mauritanie ba ci réew yi ñu xam ne ngir mi fi jub jëkkoon mooy ngirum al awzaa'i ñoom ñépp ci ngirum awzaa'i lañ nekkoon comme ni ko al maqarri di nettali ci téeréem bi ñuy wax nafxu tiib kan moo fi dugal ngirum Malik mooy Abdurahman ad daaxil buur la woon boo xam ne Maroc la ñëw yàlla jox ko nguurug doole mu ñëw ànd ak ay dagam ak boroomi xam-xamam entourage bi ko wër nekk ñoo xam ne ci ngirug imam Malik lañ nekk mu digle ne nañ bàyyi ngirum Awzaa'i mi ñu nekkoon te jàpp ci ngirum Malik ibnu Anas ndax kooku moo nekkoon boroom xam-xamu Madina ñi daal di def noona loolu moo fi tasaare ngirum Malik kat ba mu fii kon mag ñooñi lin nattable mooy seen objectif ak seenu yëngatu su la neexee nga jële ko ca mag ñu jëkk ña ba ci mag ñu mujj ñi seen jubluwaay moo doon lislaam ci boppam lislaam bu ñu waxee lislaam mooy alxuraan ak sunna kenn ku ci ne def nga effort ci jàng alxuraan ak jàngale kook bind ko ay riwaayaatam ak ay ijaasaatam ak firi ko koo ci dégg ñu naan tafsir diw sàngam xamal ne dafa jàngoon xam-xam ba àgg ci firi alxuraan ñu naan ko tafsir koo ci dégg ñu naan ko alfa tey alfa xamal ne aw turam alfaahim la woon dafa jàngoon alxuraan ba firi ko continuer jàng xam-xam ba nekk boroomub xam-xam ñu ne diw sàngam léegi al alfaahim la ki xas àgg foofa nag mooy daraja ba gën a kawe ci xam-xam mook tafsir ñoom ñaar ña ca àgg boroomi xam-xam yu kawe lañ yoo xam ne mokkal nañ alxuraan bind nañ ko jaar fa ñu war a jaar fépp baa àgg fa sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it la fa agsi woon ci ay téere dañ ko doon jàng di ko tasaare di ko jéem a jafe waaye tariqa yi ñëw jaxasoo ca loola ñu jàpp ne lii tam ci sunna la bokk ndax noonu lañ leen ko joxe noona lañ leen ko joxe ñu jàppe ko noona kon seeni maqaasid ak seen jubluwaay mooy alquran ak sunna loolu bokkul ak nga ne lépp loo xam ne da koy fekk ci seen biir turaas lay dëppoo ak alquran ak sunna déedéet du loola waaye seen jubluwaay ak lañ nekkoon seeni moyen joxe woon ko parce que la nekkoon ci ay téere faaw nga xam lu doon téere aqida yi yan la téere xadis yi yan la téere yi nangam la téere yi ñu doon tere mu dugg ci réew mi yan la yooyu yépp tax na kenn ku ci ne def nga sa effort ba àgg fa nga mën a yem ci jàpp ne lii mooy alxuraan mooy sunna nga jàpp ca loolu di ca dund ba dem wuy ji sa borom kooka dañuy rafet ci moom jort jàpp ne am na ngant fa boroomam kenn ku ne nag ak sa yéene ak sa jubluwaay yow mi ñëw ci gannaaw bi nag yow laay wax ne amoo ngant yow mi ñëw téere yépp mën a tegu ci sa loxo mooy yépp nekk ci sa loxo nga mën a jàng ba même turaas boobu ñëwoon la fa nekkoon mu wóor la ne lii du noona nga ne lépp dama ci nuur téye ko lu tax ñu ne ndaxte saa a ci nekkoon yow moom amu aw lay fa sa borom bu ëllëgee sa borom dana la laaj te du la laaj la sa maam nekkoon waaye la yonente ba sallallahu alayhi wa sallam nekkoon loola la lay laaj loolu nag faaw mu doon loo xam ne li ñu bàyyi xel la maanaam doonu màbb lépp waaye doon saxal lépp it nag ndax loolu la maandute laaj maandute bi ñu doon wax sànq muy insaaf mooy lu baax ñu xam ne lii lu baax la lu dul noona ñu xam ne loola du noona. waaw kay sëriñ bi nangeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm alhamdulilah waaw déglu naa laaj bi xam naa li ci am solo rek mooy wane leen ci njuumte yi docteur Mouhamed Lo ci li mu wax ni ki njëkk a dugal madhab malik ca andalus ak maghrib mooy abdurahman daaxil ala kulli xaal loolu wérul aslan wérul euh, ndaxte andalus yoon yi la shakka ni euh, comme ni mu ko waxee la fa jiitu woon mooy madhabul imam al awzaa'i mi nga xam ni mi ngi faatu mi ngi faatu cent cinquante sept ci gàddaay yonent bi euh, moo fa njëkk dugal moo mazhabam moo fa njëkk a wu foofu ci ci ci ci Andalus euh, bu fekkee ni euh, ki nga xam ni moo ko fa dugal nag ndax Awzaa yi mosut a dem Andalus ka ko dugal foofa am na ñu ne mooy Asad ibnu Abdurahman am na ñu ne mooy Sa'saat ibnu Salaam Shaami euh, Asad ibnu Abdurahman moom mi ngi faatu cent cinquante booba Awzaa yi mi ngi dund. am na nañu ne saasaatu bnu salaam achaami al andalusi moo ko fa moo ko fa njëkk dugal moom mi ngi faatu deux cent ci gàddaay yonent bi kon umawi yuun yi nga xam ni ñoo nekkoon ca andalus eh, mazhab bi ñu njëkk eh, ba ba ba nga xam ni moom lañ doon attewoo moo nekkoon eh, mazhabu awzaa yi surtout nag abdourahman ad daaxil moomu mu wax di abdourahman ibni muawiya ad daaxil nga xam ni mi ngi doon euh, nekkoon euh, amir foofa ci Andalus diggante cent trente huit ba cent soixante douze mu tolloog sept cent cinquante six sept cent quatre vingt huit moom ak doomam ji nga xam ni mooy Hicham mi ñu daan dàkkantele Ar-Rida mi nga xam ni nekkoon na amir foofa ci diggante cent soixante douze euh, ba cent quatre vingt huit ba sept cent quatre vingt seize Eh, ñoom ñaar moom baay bi moo fardu woon madhabu al awzaayi foofa ca Shaam mu doon mazhabu ca foofa ca Andalus mu doon mazhabub Andalus te boobu Maghrib dafa toppoon Andalus ci Andalus la bokkoon mën nañ ne eh, mazhabu awzaayi kon ci jamonoy Abdurahmaan daaxil ci la nekkoon ci la nekkoon mazhab rasmi ca Andalus ci seen jamono ñoom ñaar. Eh, waaye nag avec eh, eh, te boo xoolee ci ci alqarn comme niñ ko waxee léegi doom ji di Hicham mi doon installé madhab boobu installation madhab booba ca Andalus moom mi ngi faatu cent quatre-vingt comme ni ñu ko waxee léegi cent quatre-vingt ci la xilaafaam yem kon madhab rasmi ca Andalus comme ni ñu ko waxee ci seen jamono. mazhab al awzaa'i la kon abdurahman daaxil lam yudxil wa lam yufrid al madhab al awzaa'i al maliki fi l andalus wa innama farada huwa wa ibnuhu al madhaba al awzaa'iya fiiha loola mooy li wér leneen lu ñu la ci wax wérut waaye nag ak jeexitug alqarn thaani ak njëlbeenu alqarn thalis al hijri te mu tolloog nihaayatul qarni thaamin ak bidaayatul qarni taasi al milaadi booba al madhab al awzaa'i commencé dellu gannaaw madhabu Malik dal di fay installé wu foofa ci Andalus. amma ki njëkk dugal madhab Malik euh, ci Andalus euh, am na wuute euh, ci kan ci taalibey Malik yi moo ko ca njëkk dugal. waaye la ca gën a siiw mooy ka fa njëkk a dugal mazhabu Malik ca Andalus mooy Ziyaad ibnu Abdirahman ibnu Ziyaad te ñu ko te ñu ko daan dàkkantele Shabtun eh, kilifa gu màgg la woon ci mazhab Malik eh, moom it eh, jeexital na lool ci tasaare mazhabu Malik ca Andalus ak di défendre mazhab bi te comme ni ñu ko waxee léegi taalibe Malik la woon bu sës rëkk ci moom. te mooy ki njëkk a dugalit Muwatta Malik ci Andalus daan ko fa jàngale eh, moom moomu moom lay eh, ci moom la Yaxya ibnu Yaxya Laysi borom Muwatta Malik bi gën a siiw borom riwaaya bi gëna a siiw ci Muwatta ci moom la njëkk a jàngee Muwatta dal di laxas dem ci Malik ngir sàkku uluwul isnaad dal di jànge Muwatta ci Malik mubasharatan Euh, kon kooku mooy mooy mooy alqaadi Shabtun euh, ku xere ñoon la ci fiq euh, ba taxoon na waa Madina sax jamono yam fay nekk dan nañ ko dàkkantele faqihul andalus comme ni ko Shirazi yi waxee amoon na it keneen koo xam ni wax nañu ni moo fa dugal madhabu Malik te mooy al Ghazi ibn Qays al Umawi al Qurtubi am ñu ne moo fa dugal mazhabu Malik dafa bokkoon ci kibaaru fuqahaayil malikiya yi nga xam ni dañoo yitte woon mazhab bi jox ko jox ko seen temps yëpp ci jàngale ko tasaare ko euh, ak di ko défendre ci ci Andalus te buñ ne Andalus comme niñ ko waxee Maghrib euh, daanaka daa bokkoon ci Andalus euh, ku kilifa gu mag la woon ci foofa comme ni ko Zahabi waxee Euh, bokk na ci ñi doon wattu mazhab bi ci ay masa ilam euh, ci euh, réewum andalus am na sax bu demee abu umar al muqri moom sax nee na moom mooy ki njëkk a dugal muwatta malik ca andalus mooy ki njëkk a dugal qiraatu nafia ca andalus taalibe malik la kom niñ ko waxee léegi te bi Malik di bind Muwatta sax moom da koo fekke moom al-Ghazi ibnu Qays al-Umawi eh, am na te mokkaloon na sax Muwatta loolu boo demee al al ca ca al-Qaadi Iyaad ci tartibul madaarik eh, mi ngi koy melal ci ni wan sarafa ila al-Andalus bi ilmin azim nafaa biha ahlaha nee na ba muy jóge ci Malik di ñibbi fa yóbbaale xam-xam bu bu rëy rëy boo xam ni waa Andalus euh, jëriñ na jëriñ na ca waa Andalus euh, faqih la woon moom Ghaaz ibnu Qays muhaddis la woon muqri la woon tamit comme ni ko Ahmad ibnu Abdul Barri waxe euh, ne dafa xereñoon ci xam-xam yooya yëpp kaana aaqilan nabilan yarwi xadisan kathira wa yatafaqahu fi lmasaili rasan fi ilmi alqiraa fi ilmi alquran Euh, Yaxya ibnu Yaxya al-Laysi bokk na ci ni yaatal madhab bi ci Andalus taalibeb Malik la woon ki mu jëkk a taalibe woo ci Shabtun mu ñu wax bokkoon na ci fuqahaawul Andalus moom tamit euh, kon ala kulli xaal li wér mooy ni euh, Abdourahman Daaxil musut installé wala fard rasmiyan madhabu Malik ca Andalus wa innama madhabuhu arrasmi madhab al awzaa'i loolu mooy li wér waaw kay euh, Cheikh Souleymane waaw xam naa li ay tënk la rek bu fekkee ni doy na euh, li ñu ci bëgg a wax rek mooy leeral ni yooyu mu wax lépp ay njuumte ci la tegu imma mu doon njuumte qataan comme li mu wax ci duxul ci mazhab Malik euh, ci ni ka ko dugal ci Andalus ak Maghrib mooy Abdurahman Daaxil loola moom qataan njuumte la njuumte la njuumte la ñàkk taakkut ci wax wala ñàkk muraaja taarix moo ko waral ak ñàkk xam euh, tafaasilu taarixu madhab bi euh, beneen bi incha allah danañ ci ñëwaat euh, dama yaram wi xaw a diis tuuti danañ ci ñëwaat mooy lu aju ci ci lu aju ci ci ci lu aju ci tasawuf ba xam lisla Sénégal ba muy jot lislaam da ko jotaale waale ak tasawuf wala jotaale wu ko loolu it euh, daanaka mënee su cee wax lu wér maadaama euh, wuute nañu ci duxulul islaam fi fi fi fi garba afriqiya euh, comme la nga xam ni moo gën a siiw ci ne onzième siècle la fi dugg booba la chakka ni mazhab Abdul Qadir Jaylaani tasaaroowul woon tariqaam tasaaroowul woon waaye nag li gën a daal mooy diggante boobu daanaka ma la wax wax yu wér yoo xam ne mu fassal la ci lislaam ak taarixam fii ci Sénégal waaw ndax bu fekkee ni Sénégal dafa doonoon bi aw ab gox rek bu bokkoon ci ay imbaratoriyaat comme Ghana ak euh, Mali euh, beral Sénégal taarixu boppam ci jamono boobu dafay xaw a jafe euh, man damay wax toujours sax ni dafay bokk ci xata ñu jàpp ni Sénégal mi ngi dugg l'islam a ngi fi yegg si onzième siècle ndax onzième siècle boo ko xoolee dafay tolloog à peu près quatrième wala cinquième siècle ci gàddaay yonent bi Euh, bu dee wér na ni dugg na ci Mali ci premier siècle bu gàddaay bi wala deuxième siècle bu gàddaay bi ci njëlbéen nga bu dee loola wér na fa min al mustahil aw min gayri al maqbul lislaam yéex a dugg Sénégal ba ci quatrième wala cinquième siècle loolu gayru maqbul ndax booba du ñaari réew mennum la woon euh, Soudan al garbiya Euh, wala mu bokk ci impérator wala mu bokkoon te wér ni daa bokkoon ci impérator yeti Ghana ak impérator yeti Mali da caa bokkoon mamlakatu Mali euh, mustahil lislaam yegg Mali yàgg fa euh, ba mu tolloog ay siècle te yegg siwul Sénégal gox boobu ci Mali fi ñuy tudde Mali tey lislaam yegg fa Tumbuktu def ay siècle te yegg siwul senegal loolu mustabaat jiddan wa xayru maqbul xayru euh, maqbul aslan benn réunion ci aussi waxoon naa ko docteur Rawane Mbaye dama bokkoon ci commission culturelle bi ci foofa sax laa xamante ku mel ni Cheikh Ahmadul Badawi mas naa def taaqib ci mashruu téere bu ñu joxoon bëgg a jàpp ni Sénégal l'islam mi mi ngi fi dugg ci onzième siècle waxoon naa ko fa ne loolu xayru maqbul aslan xayru maqbul ndax wér na ni Mali l'islam dugg na fa fil qarni al awal al hijri aw al qarni thani al hijri te moog Sénégal menn la woon eh, yegg si wu fi mën nañu ne nag eh, fés gi mu fi fés eh, ba ab buur taban nii itinaaq lislaam ba pare taban nii lislaam mu doon doxinu dawla dawlaam ki naan waar jaabi waar jaabi njaay waaw mën na am comme buur la mu mu mu itinaaq ba pare fard ko ci ñamu yilifoon loolu mën na nekk onzième siècle loolu moom euh, kenn mënu ko weddi waaye nag comme dugg gi lislaam dugg Sénégal bay afraad aki i jamaat dugg ci lislaam ne qarn alhaadi achara la ci almilaadiya ana astabidu hada euh, wa gayru maqbul baax na jërëjëf xam naa bu ma gënee féex fii ak suba incha allah dinañ ci defaat ay leeral surtout dugg lislaam duggub mazhabu Malik ci ci ci ci ci andalus ak maghrib ak ci wàllu almurabitun euh, lu aju ci ñoom incha allah jërëjëf mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun